wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa shuriyatihi wa man tabiahum bi isan ila yawmiddin mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax te di leen ziar di leen baalu àq tamit te di ko sàkku ci yéen di nuyu képp ki nga xamante ne yaa ngi suivre seen site internet bi di 24 actu comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen rek saa su nekk ci seen émission gëstu diina ji gëstu diina ji nag buñ ko waxee lépp loo xamante ni lu soxal diina la rek comme liñ leen ko diggee woon rek ci lay doxee tey nag nekk émission bi nga xamante ne mën nañu c'est spécial ndax euh, ñu am ànd ci ak euh, suñu gan tey euh, nekk Oustaz Mbaye Ndiaye nekk koo xamante ne boroom xam-xam bu mag la bu ñëpp ràññee suñu temu tey nag nekk li nga xamante ne moo di aaxiru zamaan moom la ñuy waxtaane tey xam naa ñu bàyyi suñu gan mu nuyoo Oustaz mbay maa ngi lay

Euh, jërëjëf Oustaz Mbaye Ndiaye ci nuyoo bu am solo boobu tey suñu temu tey nekk li nga xamante ni moo di aaxiru zamaan Oustaz tey boo ñu doon forom fàcceel lan mooy aaxiru zamaan lan nga ñuy tontu. sallallahu alayhi wa sallam xamal ni bis dina ñëw bu ñu woowee aaxiru zamaan jamono jooju nag bu ñëwee rek jamono yaa am soriwul alxuraan wax ni ni iqtarabat saa wan saqal xamaan bis dina ci jigéen si nag sunu borom xotti na weer yi bu ñu bis dina ci jigéen si nag mooy aaxiru zamaan aaxiru zamaan nag dafa am ay mandat yoo xam ne moom la ñu yoroon ci sallallahu alayhi wa sallam saa yu ñëwee na leen leer ni aatul samaan dikk na yoma xeyaami diggante na mhm. waaye soraatu mhm. aatul samaan dafa am alaamatul kubraa ak alaamatul kubraa ay mhm. mandarga yu ndaw ak mandarga yu mag li ñu gën a bëgg andi ci waxtaan nag mooy mandarga yu ndaw yi nga xam ne moom suñu ko gisee gis ni ëppeegul ba mel ni ñu ngi def ci baaraam waaye diggante na lool am naa ay alaamatul kubraa nag moom bu ñu ko gisee mooy wane ni moom

lu ñu war a tolloo juróom-ñaari point yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu. sallallahu alayhi wa sallam. waaw ñu ngi ko gisee ne ñu ngi leeral ci seen liggéey. yooyu bokk na ci insaaru jël insaaru jël. muy jigéen bi ba am yéen ba am yéen. tasaaroo ci àddina bi. nga xam ni ñu xam waxatuñ wala ñu xamul ñooy yëngal su ñu tolloo foofu rek ñu leen leeral ci seen liggéey. kon ak loolu waxatuñ ko. ñu ngi doon ni ñu leen ñu farata ak sunna mun nga ràññee farata ak sunna léegi nag yow daal dafa ne bu ngeen àggee ci réer réer dem ba tasaaroo nga xam ne ñu xamul ñoo wax ñu xam noppi beneen ñeer ni yéen ngay toll ci aaxiru zaman yi mujjatu jamono loolu la ñëpp kenn ko mën ngaa fiir sa bopp xam ne ñu ñu xamul rek ngeen nali nga xam ña ngi ci waxtu yi jërëjëf ndax xewoon maanaam fii surtout jamono jii. jamono jii. Mhm. nga xam ni boo demee ci dëkk te foofu sax oustaz doguma la mais li li li ci gën a yokk problème mooy ñoom njëg gi ñu koy jaayee dafa yomb yomb boo xamante ni daf lay leer na lii moom ah, problème la leen di indil ñu mën a jëlee dara ak gannaaw. Mhm. loolu du baax ak dara teewal ko saxaabul jëmm léegi nag mënul waa mbir bu ci jamono sàngara nag gën di waat dara tasaaroo te bu boobaa nit ñi leen téye seen bopp bàyyi ko rek lu ko lu ko neexee muy doxe léegi nag ñu war a xam ni tasaaroo sàngara jamono bi mhm. day wane ni man barke yomal xeer parce que moo mhm. dëgg yow ndax yoon sàngara dafa wax ni ci alquran ko ni dafa ko gis aluna tamit am léegi nag yaa ci sàngara te yoon sàngara waaye lu ngeen mu maa doon la sànga am na bàkkaar bu waaye am na njëriñ mhm. ah, ni lii am na bàkkaar ba pare am na njëriñ mhm. loolu kon mhm. ma lii ci waral mbugale am nekk loolu mooy bàkkaar bi ak itam ñu ngi ci dugal ci mbokk ci alkare o ainihin transporta. Jirgin biyu za a kan tsarin kebon da ta biyo da kan tsarin. Yake kuma da nan, yake tsarta ne a ne, kuma a kan ya fi, yana da ya kan gai. Kuma ne ba a kan zuwa da ta kan gai da kuma da kuma ya ne, kuma ya ne, kuma ya ne, kuma ya ne. Daban, ina zani, zani ba wani gida, ba ne, a aikata, a wani mummunan, ba maanaam comme nit ñi moom ñoom nañ am xaalis bu bëri bi rek waaye bu ñu xool anam ba nga xamante ni ca lañ koy amee. Mmh. Mmh. Mmh. ñaanu si yow daal kon léegi boo ko jublu da ngay doon tabax te waxoon ni yaa ngi gën a amul laa taqrabu salaata ak subaa. Mhm. jigéen jigéen jigéen ci biir man. li war a aay dañuy wax ci mooy boo wax boo taxu. Mhm. ñu bari ci ñoom dañu def bu ñuy julli bu jaaxle saa fekk na woon ak man ñu ne ko yàlla ñu àdduna ñu wax pour yàlla yow taxul la aaduma taxul yoon yi taxul maa taxul. Mhm.

ñu wax dàll yi. ñu mhm. wax kàttu. ñu mhm. wax kër yooyu yëpp rek xaraam nañu ko moytal ko bés bu nekk tey dañu ko bàyyi saytaane bëgg tàbbal ci leen ak looro ak bale bi seen diggante. Mhm. kon na ngeen bàyyi sàngar. fekk ni balaa nga xam ne motul wax nga tàgge saxaaba yëpp ñu bëgg ko may daal di arrêté leen arrêté leen. kon saxaaba yi ko yow. boo ko defal ci sàngar. léegi nag yow bi noonu la. jamono bi bëgg a mujj. maanaam tuuti ak naan nga ñëw. sàngar nag saxaaba Oustaz Mbaye leeral yooyu am na solo macha allah mais dañu gis na léegi loolu nga wax noonu nga xamante ni yéen sallallahu alayhi wa ne ko ñi nga xamante ñoo di saxaaba yi dem na ba benn moment mën nañ ne dafa ndax euh, ñu jégal ma bu baax ci kàddu yi ak ñama ko war a wax parfois da dugg oto gis benn borom kër boo xamante ni moom day toog ba xam ne guddi jot na rek mu yoon ndànk dugg ci Mbàkke Tuubaa yi dem defi la def ñëwaat grand boo demee Mbàkke moom mën nga ne sax borom kër yi sax ëpp ñi nga xamante ni jeunes leen na la yow lii bi nga xamante ni yonent sallallahu alayhi wa sallam na ko joxe agsi nañ ci jamono jooju. mm loolu laa la benn gis la. boo ko dugg dugg ñëw waxal ni loolu wax parce que taaroo ci adduna bi. taar yaa place. te mag ñi jëm ay borom kër ñoo ko def. te bu góor ñi bi nga amal sàngara li bi nga rek. dañu ko bàyyi. day tax ak gaaw a màggat. day tax ak du jaar sa du jaar jot. sàngara soo ko dee naan da ngay ñaaw même bu wàllu nag dañoo gis ñaaw. sàngara da yàq ay bëñ. sàngara da yàq ay bëñ. sàngara da yàq dégg-dégg. lu bëree mu nekk loo xamante ni mën nañ lu xaw a doy la waaye la ci benn côté ndax yéen noo nekkee borom kër am kàddu ci sa biir kër sa njaboot kat ndax jamono ji dafa toll moment bi nga xamante ni yow mënoo def lenn loo xamante ni lu umpe la ndax koo xamante ni moom moom nga bokkal koñ sax moo lay gis fexe ba siiwal la ca koñ ba yow tamit sa doom dina rus rus goo xamante ni maanaam du du ko mën a sax leeral mbir mi dëgg-dëgg nan lay demee mais ñu gis ne dañu ni jigéen jigéen ñi nuru nuru ay góor est-ce que loolu tamit bokku ci màndarga yi nga xamante ni day wane ne ñu ngi ci aaxiru zamaan. sallallahu alayhi wa

kon ñu déglu seen li ñu dégg bii ci Touba sax. amul benn déplacement Sénégal boo xam ne boo xam ne. loolu la Touba kenn ñu ko gën a manifestoo. kenn ñu ko gën a génne ba xam ko. waaye boo gëstoo ñu am lu ñu gëstu. da ngay yore am nañu wax ne moom la. ndax lii maanaam li ñu xamoon ni. bu ñu tëjee rek ñu génn. te loolu yàlla saa tam loolu bu ñu caagee dinañ ci aaxal zaman. kon loolu ak day leer ba tey rek ñu ci aaxal zaman. dañ ci aaxal zaman. ndax maanaam day góor gi rek man. loolu daal dafa war a xam ni su ñu demee tam ba. ay tisaaru silam njaalo tisaaru seen diggante ñu ne ba njaalo bari te xam ni kenn du ci am lu mooy jox mhm. yàlla taala taala boobaa yéen ci aaxir zaman mhm. ay boobu la yoo xam ne saa dana boo xam ne su ngeen àggee rek yéen aaxir zaman kon góor gi ñu dina tisaaroo boo xam ne sàngat tisaaroo ko ci la mhm. tisaaroo bi ñu tisaaroo bi nga xam ne lu ko mën a wax xam nga ne ba ngay dëgg dul am na suñu borom bi leen xam nag ñu doomul jigéen ñi di leen àtte bari jëme leen ci lu dëgg ak di leen war seen bopp su ko li ñu xamul li ñu ëpp lu naan yàlla waaye seen bopp lay wan parce que dañu ay sëriñ ak ay kilifa yoo xam ne du la war seen tubaab sax waaye seen bopp la lay wan ñoom seen bopp la lay wan man maay nangam maay nangam sëriñ boo xam yow jaari bi li li nga leen di gën a yittewoo mooy ñu góorgóor ci daayee li ma war a wax foofu damaa war a wax pour ñëw ñu góorgóor ci seen borom. góorgóorlu bi liggéey bi am xam ni soo yaakaar. waaye nag pour bàyyee rek pour yow sa koom-koom bopp loolu sax ci màgg ngay aaxal sama la ko tey. voilà su ma di liggéey mooy ne tuuti àll bu boobaa ndax dañ ne bàyyi bi def saaro. mu ne su boobaa nag foo mën am pour sa loolu foo mën ndax alquran boo gisee lu ñuy wax sàcc. dafa wax ni ak saare ko. waaw bu ñu gisee nag daal di ko zaari yëpp lu tax mu bindal bindal ko la góor bindal ko jigéen. Mhm. waa Zaria kooku yaa la jigéen moo ko faral ko góor ñëpp. ah jigéen moo ko faral ko góor ñëpp. waaye sax li ñëpp xam ngeen ni góor la gën a gudd. boo ko jigéen ñi baax na waaye góor la ko. Mhm. xam nga ak doy na man teewoo ak Zaria. Mhm. ku jigéen ki ko Zaria. yaa la ko góor ñoom ñaar. fan bi du kullu waaye ñu ñoo def. mi ak jàll de. kon bu la diggee leen dóor ah téeméer waa téeméer évacué mm-hmm. déedéet loolu lii ñu nee àgg la rek mm-hmm. àgg la bu ñu war a def ci waaye mm-hmm. ak ku jigéen bi ñoom ñaar ñëpp àgg la bu ñu war a def ci kaw waaye amul yaqiin bi ndax yàlla jéggal ay bàkkaar àgg la la bu ñu war a def te ñaar lu bëri saara dafa nit ñi sa Oustaz euh, dëgguma la foofu sax xam naa di nga gën a leeral bu baax a baax mais ci saanee googu nga xamante ni fi nga dugg da nga gis koo xamante ni mën nañ ne comme par da nga jiw sa doom sa biir kër mu leen na def na loo xamante ni dem na ba loolu ñu naan tollub diggante daf ko cay daf ko cay dal mu leen la kii def na loo xamante ni dëppawut ak lislaam dëppawut ak charia nga di ko sàng sutura est-ce que sàng sutura googu nga xamante ni mu la ñuy bay bayal seen njaboot yi ci biir kër gi demul ba law ba jur lu baree baree bare ci réew mi gis-gis boobu. lu ñu daal moo dina teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ñëw ci moom ñu ko damaa def ndax njaala waaye yonent bi ak biir maa def bari de. xam nga ni ku njaala ku sa yow fekk am na kër. sa yow yaa xam na laa war rek. waaw bañ sax dina sànni xel dara de. léegi bi kooku ñëwee yéen saa doon dugg wuñu ko. ñu ñëwaat ba mu ñett yoon. yow saa laay dina ni ko ginnaaw nga am bàyyi ko am doom. bi mu amulee doom bu ñëw gërëm ci yéemaane bi. mu ñëw mu ne ko bàyyi comme ça ba mu meree ndaw si bi muy ñëwaat dafa àndaale sax mbuuru garal ma mbuuru bi mu garal ma war ko ni ko doogi léegi sax. Mhm. damaa bëgg nga am attaquant sa bopp. yow sax tam seen tëdd bi ñu la attaquant. seen tëdd bi ñu la attaquant. ndax leeral na ci benn hadis bi. Mhm. wax naa ci yàlla ni Faatimatu bint Muhammad nii bu fàttali laa dagg la ko. kon li nga wax léegi. Mhm. toujours ñi ñuy jéem a def ci suñu biir. maanaam doogi day ak. ak bi gis naa ay njëriñ te da gis kilifa yoo xamante ne ñoo nekk ci koñ yi wala borom xam-xam yi war cee wax te dañuy jël seen tàng teg ci am naa ne ñoom ñu ngi ne ñu ngi woo ay kii bi ndax fekkee yow loo wax doo ànd te amaana sax wu àdduwoo waaye yaa ngay jéema yokku di jéema def loo xam ne yow yaa koy nëbbu kii def te di nëbbu ko du bëgg loola yokku te bari ay borom mm-hmm. xam mm-hmm. ak ñu ngi woon ay kilifa te duñu kilifa sax waaye dañu koy woon ndax Sénégal moom mm-hmm. ñu gën a xam ci kilifa kër bu rafet pitage kër bu nekk millionnaire wala milliardaire ah yor kàttan yi Mhm. ak foofu nga dugg sax am ñi nga xamante ne dañuy man ne man doomu sëriñ laa comme sëriñ yi nga xamante ne sëriñ yu siiw la ñëpp ràññee leen ñu dem seen benn ruq rek di mbubboo ne man doomu sëriñ laa ñu xam ne nekk la loo xamante ni gis nañ ko la for la loo xamante ni jëfin ju doy waar la bokk loolu tamit est nekkul li nga xam ne na ci màndargam aaxiru zaman maanaam fa mu jaar ak fa mu nekk lépp la sama papa sëb bi ko xadim la rek nga ni lu ma neex def pourquoi yaay kat ba ma neex def suñ tubaab sari atul mo sari atul ñu ko xara ci wata ak ko mu la war mhm. ci ñaar yi la yoroon ci sala sama tegoon suñ tubaab la tegal bi wax ko kër yi nga nangam nangam. ñu def nit ñaar yu bon yooyu. Mhm. bu ñu waxee ñu ni diw nangam la sant. Mhm. déedéet plus sant da nga xam ne sant Mbacke ak sant Ndiaye ak sant Diop ñoo yemal Sëriñ Tuubaa fee dem. su ma demoon rek. Mhm. xam nga moo tax Mbacke gën koo kawe léegi Seexul Xadiim suñu yaakaar. moo tax léegi boo dee Mbacke laa sant ñu siddi xool la léegi daal siddi xool la nag war naa am kon noo mel noo xam ne dina bokk ñu keneen bëri wu. kon loolu ci mandat bi aaxiru fanaan la. ñu nga xam ne ay doomi soxla léegi ay doomi sët. dañuy teg seen tànk ñu kenn maa koy seen tànk. waaye du du yomb lool nag ndax Oustaz ñu ñëwaat ci bu baax a baax a duggaat ci li nga xamante ne moo di góor jigéen gi nga ñëwoon sànq ndax damay gis ñoo xamante ne mën yu mag lañ te naa sax euh, xam naa tur bi du ma ko mën a tudd bu baax ndax euh, euh, joxante cër gi a baax mais da ngay gis ñoo xamante ne mën na mën nañ ne tàggakatu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ bokk nga gis ne seen doom ay góor jigéen lañ mu nekk loo xamante ne tamit jëfin yu doy waar lañ ndax comme par exemple li mi ko ñu ne sa papakat ñu ngi koy tudd nga am doom joo xamante tamit day def loo xamante lenn la lii lu ñaaw gaaw a ñaaw la loolu tamit xam nga euh, jëlale naa nit ñi nga xamante ñoo koy wax mais yow ki nga ki la sukk sa parent bi ci moom lay gën a metti nga dollu toll ci yenn âge yoo xamante ni sax moom dina ko bëgg a faj du ko mën a faj du la mën a dara xam nga bu bu yàggee dal def da day def loolu ñu naan bërgal moom la lay def mhm. Mhm. Mhm. tardé yomal xiyam ndax def naa ne ci xadis Muhammad yi bu fekkee ñu jàng ko xadis bi boo koyee loolu la ci waxan dafa wax ne bu ñu demee ba gis nit jur doom ba pare ragal ko waaye nit ki doom lu mu ci doon bari na fi torop loolu la yéen di wax ko ci xadis Muhammad yi ñu ko bu ñu demee ba gis nit ku jur doom ba pare ragal ko leen leen ci tigi ba ñëw bu ngeen demee ba gis nag ñi nga xam ne amuñu woon dara dandaa fàndaañu ah nekk ko waa bu baax amuñu dàll amuñu lu sol ba pare nag di dem ba yi gudd leen ay ay tabax. Mm-hmm. di tabax ay immeuble. Mm-hmm. te ñoom dëkk yi ñu nekkoon dañ leen a yërëmal. Mm-hmm. mais bu boobaa nit ñi ko yërëm. parce que xool suñu kuréel yi njëkk boo dem kenn ku nekk sant naa la ko war ñun ko mag ñi gën a yërëm léegi ñu ëpp am.

ay nga diine sax farata sax mooy loo xam ne diine diine la sax sax moo tax teg nga ko nële jàpp jeneen diine yoo xam ne ñoom ñoo lay encadré jox la ay millions wala ay milliards ngay woote fa ñett am na di ay kilifa yoo xam ne ay kilifa laa yoo xam ne farata dañ lay wax ni ngeen di nekkee ci dëkk bu sell boobee bu ngeen di ko nekkalee lu ngeen soxla ñu jox leen ko waaye nag yéen yéen a fay nekk sun loo xam ne yoo xam yoo xam ne ñu ngi bëgg yoo di boo di ci wàllum jëm du mu woote sa réew leer nañ xam nga li mu woote. suñ ci wàllu kese ay jaamu wàllu amul solo naaw naaw ñi ci ëpp ci ñoom. Mhm. formation yi ñoo leen jiital teg leen ñëpp ay kii bi Touba di jëm ay xibaar di leen mhm. yëpp. ne am na sax ci côté boobu. loolu la ko waral. kon loolu asul. loolu dafa bokk mandat bi aaxul sabab. nga xam ne góor bi léegi tasaaroon taara boo xam ne përk bi am na dëkk bu mag boo xam ne daa ngay jàpp ci. dañuy gis waa dëkk ba ñëw ñu manifesté wu ñu lii ma bëgg bi bàyyi. waaye bu fekkee góor bi xam naa ne dañuy finance bi daal na xam ne loolu mooy wax. ndax góor bi la loolu. nga xam ne ñoom dañ la bari léegi moytu kenn ci dëkk bi përk boo jigéen te bu baax nag li bëri Sénégal bi joxam moom joxam laaj na ko xanaa dëkk bi ñu ko def Sénégal àgg nañ pour sañ a mën a taw góor jigéen ca réew ma mu ne sañ na ko man ma ne dara li ñu lor mu ne xaw ma dara li ñu lor de waaye li ñu tee lor bi jógee ci man pour dara moo wax loolu kon day mel ni li la doole ndax te yow kii de góor jigéen sañ na mën a taw ci réew boo xam ne réewum jigéen te président nee na la cay la ñuy tee lor moom bi jógee ci moom kon loolu day mel ni Mhm. waaye nag ñu am suñ fulla ak suñ juumte xam ne aaxul sama lañ nekk mhm. waaye nag yow saa sa waxal na ni moo waay man du mhm. tee nag alxaajir ala diini kalxaajir ala jamratin naa Oustaz ñu dikkaat ci aminu alal bi ak euh, euh, anam bi nga xamante ne ci lañ koy amee am ñu bëri ñoo xamante leen di jëlal faat bakkan surtout xale yu ndaw yi nga xamante ne dañ leen di jàpp di leen sacrifier ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xamante ne ñoom ñoom daal nañ am teraangay àdduna rek moom moo leen ko jaral duñu xool ne lii kat ëllëg yow la xëyam lii mën na ma cee fekk wala est-ce que loolu tamit ba tey du dikkaat ci li nga xamante ne moo di aaxiru zaman mm-hmm. nit ñi doon ko rek ñun ñëpp la ko kenn nit ci borom alal yii lay gis tey koo xam ne nit ñi loo xam ne dërëm

Mm-hmm. ay njëriñam ci ñàkk na ci ay nit. ay làmb. ay carte yu mel noonu ci ñàkk su la yooyu. Mm-hmm. ci la ko dugal. moo mm-hmm. te ñooñu gën a ragal dee. boo ko dugal seen bi ba xam ne ñoo la gën a ragal dee bu kenn ci loolu rek parce que dañu mel ni. pour nañu ba day jaaxle waaye bu loolu jaaxlee kenn ci la. bu nekkaat la nekk. war bu mën a jërëjëf euh, Ousmane Mbaye ci leeral yu am solo yooyu xam na waxtu bi moom li ñu mayoon mën naa ne presque jeex na euh, lan ngay tëjee ak euh, lan ngay dénk li nga xamante ni ñi ñi nga xamante ni ñoo lay bàyyi xel ci surtout aaxiru zaman bi nga xamante ne mën nañ ne fi lañ toll ak lan ngay tàggoo waale. xam ne lii nag xaalis la ñu tax yàlla. waaw li ñu tënkal ci àll samaan. mën naa ne xaaj xaaj xaalis ak sax. li ñu jaaxal waaye wax dama koy demee noonu. xëy na bis jamono dama la ciy dégg ko jiwaat. incha allah di kontaan baax a baax a baax. ci biir kii bi rek. ci ñëw bàyyi xel. ni gis boo liggéey mu yombal xalaat. gis nga ko bàyyi xel. ñun itam mandarga yi ñu doon saa la wax ñun. ñu gis ko. ñu xam naa ko soxla mandarga yi ndaw yi nga xam moom la bu ñu ko gisee nii léegi bu ñu ko gisee wax naa ci yàlla benn bu ñu leen ci baaraam loolu moom lu ñu tiim la. benn bu ñu leen leen ci baaraam. kon bu loolu bàyyi xel yoon bu ñu bàyyi wax léegi. ñu ngi amee ñeenti yoo xam ne la mooy jàppale. waaw te mu taatu la ji. kon mu mucc ci yoonam bi. keneen bi kon dafa xam ne bu ñu ci moom lee ma taxaw. lee ma taxaw loolu moom. kon nañu nangu la suñu borom. Mhm. nekk ci yàlla nekk ci diggante seexu xar yi ci yaakaar ak yaakaar mhm. li ñu digal ñu ko def ñu ko def ñu ko bàyyi. te mhm. gëm ko yaakaar trop. te ñi nga xam nag dañu dugg ci bopp rek ak dara ñu bañ a fee. te ñu ci tubaab ak yéen jumaa bi di sant bu baax a baax rek. ñu ngi sant. ci la. ci xarit ci soppe. waaye itam di sant nag euh, suñu doomu baay suñu lépp. ci yàlla suñu laay. moom ndeysaan day koo xam ni ñoo ko bëgg suñu bopp. Euh, di koo xam ni. bokk na ñun ci gën kër boobu ak léegi nag lépp mooy waxat mhm. leen koy sant bu baax a baax a baax di mhm. euh, allah waaye itam Mm-hmm. allahumma amin amin amin jërëjëf euh, Oustaz Mbaye Ndiaye ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm euh, tembe bi nekkoon tey li nga xamante ni moo di aaxiru zaman ñu fàttali waale leen ci bu baax euh, ci su tedd ka di Serigne Touba Xaadimu Rasul daana wax naan boo aaxiru zaman bu ñëwee jamono dina toll foo xam ne bu buñ cay yeggee ñaar dina bari lool lenn làq loolu su boobaa nag nee na dara du doon seen musal loo xamante ne moo leen di musal dara du doon seen làquwaay ndimbal nee na tamit euh, lu dul ak taalu bi nee na su ngeen demee ba xam-xam ne gaañ ñi am am ne gaañ ñi ab yar làqu na ngeen sax ci taalu bi te sax ci ba bëccëg watoo ko seen bopp mu nekk loo xamante ne mën nañ ne lu ama ama am solo la te Serigne Touba am jàngaleem weesuwul lu dul moom bëgg Serigne Touba bëgg Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ak di lu baax di tere lu bon kon mën nañ ne war suñu mag ñu baax ñi nga xamante ne mën nañ ñoo fi nekkoon di jëfee li nga xamante ne moom la ñu daan sant lépp loo xamante ne tamit ab safaan la ñu di ko moytandiku bu baax euh, santaat bu baax a baax suñu invité bi di Oustaz Mbaye Ndiaye di ko gërëm di la sant bu baax tamit ci yombalal gi nga xamante ne yombalal nga ñu ko invité bi ndax yow moom mën nañ ne suñu xamante ak yow euh, nekkul tay démb la woon te di boob ba léegi ne mën nañ ne dara yàquwu ci chaque jour rek day gën di rafet nga nekk nit koo xamante ne nit ko oyof nga laa biir macha allah mën nañ ne lépp sax mënuñ koo wax waaye tamit euh, li na ci xoli daal moo ëpp ñu ngi bu baax di la gërëm di sant képp ki nga xamante yaa ngi suivre seen site internet bi di 24 actu rawatina seen émission bi di gëstu diina ji thème nekkoon aaxiru zaman di sant El Hadji Ousseynou Ndiaye Cheikhouna Ndiaye Serigne Salihu Khady Niang mi nga xamante moo jàpp ci montage di sant Soxna Awa Ndiaye ñu ngi leen di daje ci yeneen jotaay ci seen émission gëstu diina ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Amen